abonné leen ci saa su ne ay xibaar yu wér te wóor ak ci bitim réew. rajo bi jaamu seeni soxla. li ci yéen kay. yegg si nañ ci fas yéene dalal jaamu séeréer Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu kilifa gi. naka suba si. sant alhamdulilah alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi fi rek. aljuma ji. Euh, waaw mubarak euh, ñu ngi ñaan suñu borom. may ñu ci xéewal hmm. am na ci solo. si am solo. jërëjëf Seydina. jërëjëf koy dooree ci xët yu njëkk lum ñu dégtal. waaye yéen gi ne da neexul ba neexul waaye DGE dafa jalgati li nga xam moo di loi noonu la ko yéen gi xëy fësale yéen gi xëyee dellu si waat ci lenn ci ay moomeel yoo xam ne ni kii di Léopold Sédar Senghor moo ko amoonoon te nekk fële ca France tubaab yi nekk dañoo taxaw tamit ngir def ko vente aux enchères loolu nag mukk du ca dal sàkku na ki nga xam ne ni moom mooy bu Sénégal mu def kéem kattanam ba décision boobu ko noonu la ko yéene kaay gi di kaay geneen di l'info ne Ousmane Sonko ba fii mënees na xam mu ngi ci ay jafe-jafe noonu la ko yéene kaay gi di l'info xëy fësale donte le juge fiche parrainage waaye bu mu demee nag fële ci DG e, maanaam kii di mandataire waaye dañ koo tere mu dugg loolu nag doon loo xam lu métti la avocat Ousmane Sonko bi nga xam ne daanaka démb moom dafa demoon fële ci DG e, waaye dafa ñibbi ak loxo neen noonu la ko yéene kaay di réew mi xëy fësale ndax yéenam ak bëgg-bëggoon moo doon jot ci li nga xam ni moom moo Euh, ay fiche de parrainage waaye ñii di waa DG dañ ko tere noonu la ko yéen kaay gi di réew mi xëy fës na Abdoulaye. yéen kaay geneen critique yéen kaay gi di critique moom dafa xëy samp laaj bëgg a xam ndax suñu DG yi maanaam suñu administration bi.

quotidien xëy fësale euh, bu yeesoo sud quotidien 24 heures yéene kaay gii di 24 heures ne eh, kii di Ayib Daffé daanaka dem jotewul dem bu fële ci makaanu DGE li ko waral mooy dañ ko tëjal ay buntu li ko waral ak moo di waa DGE kii kii di njiit di Tidjane Fall dafa lànk ne ko daj ak moom loolu nag doon loo xam lu métti la avocat Ousmane Sonko ba tax ñu jàpp ne eh, kii di Tidjane Fall dafa nekk di jalgati yoon noonu la ko yéene kaay gii di 24 heures xëy yor yor bi lam dellu siwaat di samp laaj bëgg a xam DGE hors la loi bu fekkente ne dem nañ ba nga xam ñu ngi jalgati article 54 article 47 bu code électoral loolu dafa doon loo xam ne lu doy waar la tax yéen kaay gii yor xëy tey daal ci amal ab taxaw seen eh, turbine fam ñu taxaw yéen kaay gii xëyee dellu si waat bi wax tamit objectif bi na lam si jubalaal mooy filtrer ak it éliminer yi noonu euh, bi euh, daal xam ne mm-hmm.

ay fësal yéen kaay geneen l'exclusif wax ci coowal suuf si nga xam ñu ngi ko fële ca Bambilor jàppante yu tar tara moom la ñu fa nemeeku démb <laughs> ñaar fukki hectare ak benn moom lañ jël ko daal di koy baaxee ab ab homme d'affaires loolu nag doon xam lu metti la askan wi ba tax démb ñu ko fësal tey mooy cérémonie sargal fête l'excellence bi ñu amal démb fële ci UCAD ñu jagleel ko professeur titulaire bii di Magaye Ndiaye. Euh, révélation. révélation yéen dafa xëyee dellu si waat si mhm. du jëm ci élection présidentielle yi di ñëw ndax gis nañ ne kii di Youssou Ndour ba tey gisuñu ko si euh, ñu doon xaar nag mu nekk ci candidat waaye finalement doonu ko ndax gis ñu ne euh, dafa retiré ay euh, ay liste de parrainage a neexul ba neexul waaye dafa nekk ci calcul booy wër daal képp ko ci mhm. wàllu ci wàllu politique mhm. ba daje Youssou Ndour bu la yeboo jàpp noonu la ko yéen kay gi di révélation xëy fis yéen kay geneen le soleil yéen kay gi xëyee dellusiwaat ci lu jëm ci suñu yoon saxaar gi nga xam ne dañoo taxaw témé gi dekkalaat ko yéene gi ne fu mu toll daal gars yi ñu ngi def seen képp kattan ngir daal tegaat yoonu saxaar gi ci yoon noonu la ko yéene kaay gi di la Soleil xëy fësale yéene kaay gi di enquête yéene kaay gi di l'enquête ne vente aux enchères mu soxal lenn ci ay momelu ki nga xam ne ni moom moo di euh, moom moo di euh, Léopold Sédar Senghor tubaab yi nag taxaw ne tamit ngir jaay ko loolu nag doon loo xam ne lu métti le président Macky Sall ba tax mu jox ndigal kii di ambassadeur am ne ne def kéem kàttanam ba gis ak kilifa yi nekk ci France ngir lu ni mel ñu dakkal ko ndax Senghor ay moomeelam doone lu ñu war a mën a jaay noonu la ko yéen a kaay gii di l'enquête xëy fësale yéen a suñu lamb suñu lamb lañ koy jeexale wax ci combat gi war a dox ci diggante Eumeu Sène ak ko jàpp ni ki fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi di ñëw yéen a kaay a naka la war a def ba daan kii di Tapha